jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci euh, réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi euh, ngeen di sànd ak euh, Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi. mbokki nag tey ñu invité Amy Collé ñaar mi nga xam ne moom moo jiite mboolem jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti bii di PRP. mooy président euh, national bi ba pare tamit mooy vice présidente jigéen ñi nekk ci coalition Yewwi Askan Wi moom la ñu invité day fas yéene waxtaan ak moom ci actualité réew mi euh, soxna Amy Collé euh, Niang maa ngi lay nuyu. waa ji li ñu ngi lay fay di la wax nekk dalal ak jàmm ci mhm. nga nuyu mbokk yi ñu déglu waa waa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu mbokku Sénégal yëpp laay nuyu. Mhm. di jiital ci nuyoo bi nag di masow li nga xamante ne moom la ñu jot génn fan yi di suñu frères yi nga xam ne dañoo wàññeeku di ñaan suuf oyof ci seen kaw te seeni waajur suñu borom bi jox leen xolumuñ mm-hmm. ñoo ngi ziar ñëpp. lu bokk ci manifestation yi yooyu man manifestation yooyu sax euh, fi la ñuy euh, commencé euh, ginnaaw manifestation yi am na ñu bëri ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen seen bakkan mu nekk loo xamante ni tey lu doy la ñu koy naqarlu lu bëri aussi yàqu ci réew mi yow nan nga dundee loolu. waaw loolu dañ koy dañ koy naqarlu di ko metitlu ndax nag bu yàq-yàq amee kenn du ci mucc waaye dañ naan li olof Njaay di wax lu yëngu la ko yëngal la ko ëpp doole nañu xool li ko yëngal ba tax li ñu fii ñu agsi li ko yëngal nag président Macky Sall la ndax yaakaar naa moom mi nga xamante ne mooy njiitu réew moom moo waroon jël askanam protéger leen ba nga xamante ne lii lépp du am li ko yëngal nag mooy teg Ousmane Sonko loo xamante ne du dëgg du yoon bëgg ko jaay doole métital ko pour tëj ko ci kaso bi ah askan bi taxaw nag ne leen lii duñ ko nangu loolu rek moo tax. mais mais premier ministre bi dégg nañ ko mu ne mortal combat ak premier ministre de l' euh, intérieur mortal combat bi Ousmane ko wootee ñoom jàpp nañ ne euh, li li am lépp loolu moo ko waral. ñoom dañoo war a xam ne gouvernement Macky Sall bii fii Sénégal ñi fi nekk duñu ay dof duñu ay bàyyi ma duñu ñoo xamante ne ne xamuñu dara fa ñu jàngee la nit ñi jàngee la ñu xam la nit ñi xam li xew ci Sénégal bi ñëpp dañ cee teg bët. ku ci mel ni premier ministre ñoom depuis 2012 ba tey. 2012 ba léegi ñoom ñoo ngi génn di ñëw ci euh, askanu Sénégal bi est-ce que mus ngeen a gis démb ministre yooyu ràndoon xam man xooluma leen sax déjà dégluwuma sax li ñu fa wax. mais groupe boobu toogoon noonu ku ci nekk di wax. te ñu jox leen ndombal tànk li xew ci réew mi ñu waroon wàcc ci terrain bi dem massaw ñi nga xamante ne ñoo ñoo deele mais amuñu lu dul def toog fee naan xam nga fu mu toll nii bu ñu ko bëggoon jëli dafa am lenn lu ñuy xaar dañoo échec. li leen Macky Sall dénkoon defuñu ci dara ñoom Macky Sall dafa war leen dafa leen war a teg ba ñu toog ñoom ñëpp mu tekki seen ndombal tànk. mais mais nee nañ dafa am infiltration ci euh, ci manifestation yi amoon. waaw ñoom ñoo yor armée ñoo yor police ñoo yor gendarme bu fekkee loolu dafa am nañ ñu wax ñan la nañ ci jàpp kenn rek teg ko ñun boobu ba tey pick-up yi ñuy gis buntu buntu siège APR lañ leen gis après ñu gaare ña ñu gis ñu tiire ci oto police la ñuy yéegaat léegi nag ñoom nañ ñu wax lan moo lan la demee noonu. fii daal nervi yi xam nañ ku ñu leen di jox xaalis nervi yi xam nañ ñoom fu ñuy jóge ñun opposition man de gisuma ay nervi yoruñu nervi yoruñu oto ay pick-up yoruñu dara naqar daal amoon na ñu génn di ko métitlu ñoom nag ñoo génne seeni nit di ko teg xale vidéo yi nag yëpp a ngi fi fii lu ñu monté amu fi ñoom ñoo la gën a xam loolu <laughs> mun ànd ma pare ministre bi nee na même président Macky Sall nee na ñiy tiire ak ñi ñiy dee du force de défense et de sécurité yi ñoo leen rey. xëy na ñoom xam nañ ñan ñooy tiire ak ñan ñoo rey nañ ñu ko génneel war ñu ñan la ñoom ñoom ñoom xam nañ ko ñun de xamuñu ko ñun ñoom nañ ñu génneel ñan ñooy tiire ak ñan ñooy rey mais daal dama leen wax benn mbir boo xamante ne benn bakken sax bu daanoo ci suuf rek kooku war nañu xool nan la ñuy nan lañ koy. yëkkatee ba ci kaw nan la ñuy jëlee ay waajuru kooku ndax ëmb 9 mois ni mu méttee loolu Marème Faye Sall ci boppam moom laa ciy joxoñ baaraam ndax boobu ba tey ñi nga xamante ne dañoo deele di ay jigéen ëmb 9 mois tam moom muy jigéen xam li ëmb boobu ba tey yuyu ci yàbbu ci ne patt pataaral jàpp ñaamburam Sénégalais yi nag ñoo war a yeewu te muus nag Macky Sall presque 6 mois moo ko dese bëreetul donc li ñuy def rek mooy ñi nga xamante ne dañoo aju ci ñoom Sénégalais yi nañu muus képp koo xamante ne taxaw nga di laaj. duñ la jox dara nañ ci nañ nañ nañ xaar kenn du leen ko jox. mais mais soxna Amy ñaa euh, ñoom nee nañu dinañu ubbi enquête. Mhm. ci manifestation yi. Euh, kan moo ko procureur wax na loolu danañu ubbi enquête xool lan moo ñan ñooy responsable ci manifestation yi mais tamit euh, ministre bi nee na danañu ubbi enquête ci civil yi nga xam ne dañoo yoroon ay armes ndax enquête yooyu yow yaa ngi koy bàyyi xel. man de image yi ma gis te ñëpp gis ko. te nag wax bu dofee sax nag nopp yu koy dégg wér a war a wér image yu ñu gis ñi yore arm ci autopolis la ñu wàccee daw tiire ba ñu paree ci lañ yéegaat nañ ñu wax ñooñu ñan lañ solu ñu tëni solu ñu dara nañ ñu wax nag ñooñu yenn façon nit lañu ak fu ñu jógee ñun nag ñoom ci seen bopp rek lañuy xaar ñu leeralal ñu askan bee ngi leen di déglu pour ñu leeralal ñu. mais yéen coalition Yewwi Askan Wi da ngeen a woo euh, ñi nga xam ne tey ñooy waa Nations Unies ngir ñu yónnee fii ab euh, commission d' enquête. lu ngeen si jublu. waa parce que ñoom ci seen biir yi wax ñoo ngi naan waa CPI xaw xawma lan jarul ngeen i nda joxe ay vidéo ndax vidéo yi ngeen fay joxe wérul gis nga nañu bàyyi seen xel yi ñuy fowe gis nga Juan Branco xale yi liñ ko jox yu leer naññ lañ ko jox yoo xamante ne daf nga ciy duur sa baaraam nii ñoom nag bu dee nee nañ set nañu defuñu dara lan la ñuy conférence de presse <laughs> nañu nañu nañu xaar rek 6 mois yàggatul ci kàttanu suñu borom Macky Sall bu wàccee ci jàmm bu wàccee ci jàmm. képp koo xam ne takk nga ci lii nga xamante ne moo lor xale yi moo leen gaañ képp ku ci laale di nga rendre compte. mais est jàpp nga ne mbir mi dana mujj fenn. waaw mën na bañ a mujj fenn ci ñoom ndax ñu ngi ci nguur nag ndax ku nekk ci nguur daanoogoo fii kenn mënulu leen dara mais nag nguur bu daanoo moom wax dëgg yàlla bu demee ba jeex yoon nag dina dina def liggéeyam bu boobaa yoon dina def liggéeyam ndax ñoom am na foo xamante ne nag ñu kawee ñu am na fu ñu leen di àtte donc. foofu nguur gi. dañoo jàpp ne yéen li xew yéen opposition bi la rawatina yéen waa coalition Yewwi Askan Wi ndax ñoom dañuy wax ne euh, yéen ay woo xale yi naan leen wàcc leen ci mbedd mi te yéen du ngeen jiitu même ministre Antoine Diome démb wax na loolu. nee nañ ñun ñoo naan wàcc leen ci mbedd mi te ñun a wàcc leen ci mbedd mi yéenay wax mortal combat yéenay wax cooki fin loolu lépp nee nañ yéen yéen koy wax yéenay def daal appel à l'insurrection ah mais moom loolu moom moom Antoine Diome moo ko gis ndax moom wax dëgg yàlla man ay waxam sax dégluwuma ko du ko déglu parce que ñun jamono ji fi ñu toll nii dëkk bi ku tiitu rek da ngaa nekkul biir Sénégal ndax jamono ji ñu toll nii Ousmane Sonko ngi ne këram démb sax gis naa ko muy football di tàllal ay tànkam waaw ñu ngi ko ciy sant bu baax na xale yi seen xel xaw a dal tuuti waaye ñoom fi réew mu toll ñoo ko fa yóbbu comme nag ñoo ko fa yóbbu. nañu takkaat nañu ko fa yóbbu yóbbu ko fa weesuwul nit ki di dem di def ay nemmeeku tuuram ñu ne ko doo def seen nemmeeku tuur fu mu génn ñu ne ko kaay ak say mbokk ñu jàpp tëj ñaata personne la ñu jàpp ñoo xamante ne ñoom ñu ngi Pastef ñaata nit Macky Sall tey dialogue bii mu woote tey bu doon jàmm dong la ci jublu bu doon waxtaan ak askan bi la ci jublu ñi mu tëj da leen waroon ubbi ñu ñibbi seeni kër bu ñu ñibbee ba pare nag mu teg Ousmane Sonko teg ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp ñu toog ne leen nañ waxtaanee réew mi mais yow nañ waxtaanee réew mi te loolu maa ngi jël paaka teg ko ci sa diggu ginnaaw koo moom ku nekk ci yow rek tëj naa loolu ban façon façon waxtaan lay doon donc man moo tax même si seen dialogue bii ñu ñuy comme nee na day wax la le cinq incha allah le 25 dina am ñu ko déglu pour xool ba xam moom ci fan la jëm ak lan lay wax man yaakaar naa ne dinaan du ma def troisième mandat. ba pare tàggoo da nga jàpp ne Ousmane Sonko dañ koo tooñ. Ousmane ñëpp xam nañ ne dañ koo tooñ ndax ñaari atu yàlla nga teg ci ndodd nit ki nekk dangaa jël jigéen tëdde ko dangaa jël jigéen def ko lii lu ne ñu teg ko ci deram dem ba mu neex leen ne leen ne leen li ñu ko doon toppee yëpp dara amu ci wax dëgg yàlla tooñ nañ jàmbur bi ñoom dañoo tooñ Ousmane Sonko waaye nag sénégalais yi bettu leen ndax ñu bëri xamoon nañ ne lii lépp rek li Ousmane Sonko jàkkaarloog ñoom deux 2024 ñu xam ne kii dafa nar a gañe nguur gi te bu ko gañee képp koo xam ne laale nga ci alalu askan bi wala jël nga loo moom da ngay fay donc loolu rek a tax ñu tiit ñoom. d'accord léegi euh, Ousmane Sonko ak euh, ñoom ay séquestration sax lañ ko ay avocat tuddee mm-hmm. mais euh, état bi ñoom nee nañ maintien de l'ordre la maintien de l'ordre moo tax ñu bañ Ousmane Sonko génn. maintien de l'ordre la ñu wax mais nañ xool 2011 Macky Sall ak Ablaye Wade. ablaay Wade bu defoon Macky Sall nii tey Macky Sall du nekk président Ablaye Wade tey bu téyewoon Macky Sall du ko may mu nooy du ko dem fenn waaye na xam nga Ablaye Wade dafa nekk taalibe boo xam ne dafay déggu ndigal Ablaye Wade Alaaji Baara ci période boobu noonu euh, bu waxaan ak moom rek day teg lépp ci suuf moom Macky bañ ko bëggee jàpp mu daw wax ak euh, ak euh, nu doomu Alaaji Baara bi fekk leen fële almadi wax la ñuy wax ba lépp ñu teg ko ci suuf tey jii tey ni mu toppee Ousmane Sonko bu ko ko Ablaye Wade teppoon toppoon Macky Sall tey du doon président donc Macky Sall na delloo si xelam xam ne nag wax dëgg yàlla sénégalais yi jox nañ ko lépp lu mu laajoon buy génn it na génn génn bu rafet boo xam ne réew mii du taq te sagar du xeeñ mu dem dem bu rafet 2029 bu ko neexee mu ñëwaat laaj ci réew mi euh, bu ko nit ñi wóoloo jox ko ko. man daal loolu rek laa ci gis. d'accord mais yéen euh, sànq yaa ngi wax ne Ousmane Sonko dañ ko toppee woon viol ak menace de mort ñu si dem ñu si dem ba sa cappaandaw ga mais ñoom nee nañu euh, euh, ñoom nee nañu corruption de jeunesse te corruption de jeunesse ñoom ni ñu ko tuddee daal mooy daanuñu Ousmane Sonko nee nañu ah, Ismaïla Madior Fall nee na juge bi tuddeewu ko viole mais corruption de jeunesse la ko tuddee noonu la ko loolu moom lu ci sa gis-gis. man na dama cee xamul dara ñoom loolu ñu wax war nañu ko faram fàcceel bu baax a baax a a baax. yow daanuñu la ci viol daanuñu la ci ci ak man lu ma ñaari pistolet yi ñu doon wax sax dañ ko mujj teg de côté waa léegi man léegi Ousmane Sonko ah, viol répétitif yi man waaw man xam nga ñii wax dëgg yàlla ñu ngi foyee seen xel yi dañuy foyee seen xel tamal lii ñuy wax man dama ko cee dama cee comprendre dara dara dara xam nga guddi ji lan lañu bëgg a dégg ginnaaw yàlla ak yonent bi président Macky Sall na taxaw te nag li may wax mooy nañ ko bàyyi mu àggali 6 mois yi des nañ dem palais nañu def lii loolu yëpp du wax nañ ko bàyyi mu àggali 6 mois bu ko àggalee ci jàmm ak salam ba pare mu organiser élection yi nga xamante ne moom du bokk te du ñu tànnal kan mooy bokk mu dem dem bu rafet ak njabootam. bu 2029 jotee ki ki ki nga xamante ne lañ fiy teg bu doyul sénégalais yi moom mun naa ñëwaat laaj. man daal loolu laa gisee waaye nañ puus nañ xëcc may leen ma ñaar may leen ma ñett loolu mënut a am na lu ñu mayul Ablaye duñ ko may keneen. waaw dañoo gis euh, ñi nga xam ne tey ñooy waa euh, international dafa mel ni dafa benn pression international bu këpp jamono ji ci nguur gi ndax gis nañ ñu baree bari waa ONU di sàkku ngir ñu def ci euh, ab enquête ak yu demee noonu ñenn ñi aussi gis nañ presse étrangère bi ni mu intéressé woo ci Sénégal rawatina ci lu jëm ci wàllum vidéo yi ak ak seen ñoom loolu tamit ban gis-gis nga si am. waaw man damaa toog di seetaan dégg journal Italie. ñuy wax ci Sénégal man ma ne non musuma gis lu mel ni ci kaw suuf musta am chinois yi def seeni journal di wax ci Sénégal fépp ci àdduna bi ñuy wax ci Sénégal. anglais ak français ñëpp di wax loolu moo leen yëngal ñoom daf leen tiital parce que communication léegi fu mu àgg dafa doy waar. internet bi dañ ko tëjoon mais xale yaa ngi doon communiquer nu mu leen neexee fen feneen lañ doon dugg dangay ngay toog Sénégal yaa nga France di connecté nu mu la neexee donc seen yooyu ñuy def nañ ko bàyyi man dama ne jiili euh, président Macky ay ministres am yooyu toogoon démb ak ay député ñoo gën a xam ne Macky Sall jeexal na ci seen xol te ñoom ci seen bopp ñoom ci seen biir ñoo gën a xam ne loolu ñu toogoon di ko wax teguwul ci dëgg teguwul ci yoon ñoo gën a xamante ne ñoo ngi fa ñu toogoon di ko wax askan bi dégluñu leen donc kon ñoom bu ñu foowee seen xel nañu rafetal. mais kenn kon nga yaakaar. non mais dara frégew ci nit ñi ñeenteel lañ doon wax yëpp Sénégalais est-ce que kenn waxaat ci xam nga nga wax dara kenn waxaat ci mooy que li nga doon wax sax nit ñi parce que xolu nit ñi ñoo deñ ci ñoom xolu nit ñi ñoo jeex ci ñoom nit ñi ñoo leen bàyyi yow mii di wax ak man journaliste nga dangay ngay ci terrain bi xam nga bu baax nu mu dem taxi sax boo ko duggee lu mu leen njëkk wax mu nii nañu dem. wala waral bàyyi googu. waaw mooy bu ñu la joxee. luñ def luñ def lu exactement loo jàpp ne euh, moo tax sénégalais yu baree bari euh, bàyyi leen. gis nga ñi ànd ak Macky Sall fayuñu Macky Sall fayuñu naar bi xoromam man nee naa président Macky ba muy dugg si fii ci réew mi di laaj réew mi amoon na yéenay def. mais loo am am yéenay def te ñi la wër seen poche dong moo leen ñor ñooñu dañ lay yàqal Macky Sall du ne deful dara ci Sénégal ndax boo génnee man nekkuma nit façon nit bu mel noonu boo génnee Dakar tuuti daw di yor sa oto di nga xam ne Macky Sall defar na dara ci Sénégal mais def boo xamante ne mu bëgg ci xëpp suuf loolu moo ñaaw ñi ànd ak Macky Sall liggéeyuñu jàppalewuñu ko fuuy nañu soof nañu yépp nañu askanu Sénégal bu ñuy wax ak askan bi dañuy waxee ak askan bi dënn di waxee ak ñoom ak xol wax waxu jéppi te ñoo xamante ne ba ngay ut da nga doon raam di sukk di leen tàllal ay loxo ñu di la jox nga dema dem ba dem ba booy wax ak ñoom di leen mere askan bi nag moomuñu askan bi joxuñu leen ñu lekk joxuñu leen ni naan ba nga xamante ne yow booy wax ak askan bi da ngay wax ak ñoom nu mu la neexee ba pare heure bu la neexee nga ni dama leen di laaj seen kàddu beneen mooy président Macky Sall ci bi moom dafa juum ay kilifa yu magum jëmu toog nga naan da ngeen ma koy ñaan de da ngeen ma koy ñaan rek ma may leen ko waaye ñu nit président Macky Sall li ñuy laam-laamee naan ñaari at yooyu ñun da ñu koy ñaan waaye duñ la ko may. ñun noonu rek mais mais nee na ñu ñaan ko si njëkk ak si njëkk euh, mandat bi du ko ñaan si njëkk rek mandat bi benn yoon. duñ ko ko ñaan tey. duñ ko ko ñaan suba non xam nga nag li ñuy booy booy téye dara sax nag naan dangeen ma koy ñaan day fekk nag nga moom ko mbir mi kenn moomu ko moom da koy teg organiser ko du bokk te du tànn kuy bokk. te bu boobaa ñun PRP président Déthié Fall day bokk te bu bokkee ci kàttanu suñu borom dina gagné. mais mais mais président Macky Sall est-ce que njuumtewul du njuumte ci communication mu taxaw naan euh, ñaan leen ma njekk ci mandat bi. waaw dafa juum xam nga président Macky Sall man dama ko yërëm guddi yi ñu toll nii xam nga lu tax euh, Abdou Diouf dafa tolloon fii man Abdou Diouf sax ba muy nekk ci nguur gi boobu nag nekk naa xale tuuti waaye am na lu ma ci xam nag. Abdou Diouf ba mu fi nekkee ba mu wàccee li mu wax musul xam ne takku meew bu 100 am na musul xam ne meew kafe euh, fukki dërëm am na président Macky noonu lañ ko nar a lëndëmalee ba bu génnee dina ne man lii yëpp mosuma koo yëg waaye xam nga nguur dafa nekk loo xamante ne buy dem bay jeex ci la sa mbébét yëpp di taxaw ci li nga bëggoon yëpp la taxaw day mel ni yàlla dafa muri sa bët ngay soog a gis li nga xamante ne moo tegu pétrole baa ngi fi gaz baa ngi fi mais du wër sa gëm ay boo gis rek ak lu koy àggali moom nag li nga xamante ne moo feeñ ci réew mi loolu du wërsëgam ni génn génn bu raxat. mais mais lu jëm ci troisième mandat bi ñuy wax troisième candidature. moom ba léegi waxagu si mais ñu bari ñoo ngi njort ne daf ko bëgg a def. man de yaakaar naa ne président Macky Sall moom du ko du def troisième mandat man sama yaakaar loolu la dina dina dina organiser ay élections moom du bokk. waaye yaakaaroo mu taxaw jàkkaarloog askanu Sénégal ne leen damay def troisième mandat. mais est-ce que su bokkul du jéem a yóbbaale ay candidats. ñoo xam ne jàpp nañ ne ñemewul la ñemewu ko ñemewu leen. waaw soo bokkulee moom mbër ba mu yaakaar ne moom la nar a samp man sax su ma jàkkaarloog moom mbër boobu dama koy gañe bu dee man rek moom mbër bu mu mën a teg Macky Sall man Ami Collé ma jàkkaarloo nag mbër boobu dama koy gañe moom amul benn mbër bu mu mën a samp. mais dafa am ñoo xam ne dañu jàpp ne président. su dee jàpp na ne su forcé troisième candidature bi jàll ñenn ñi dañoo njort ne man naa mu jéem a yóbbaale Ousmane Sonko ndax ñu bari dañuy wax ne Macky Sall ak ñi mu àndal ñemewuñu Ousmane Sonko wuutu leen. loolu nag muy lu doy waar nag ci àdduna góor yàlla boo xamante ne ne guddi yoo xam bu ñu tëddee duñu nelaw Ousmane Sonko moo ne ci seen i xef moo ne ci seen i nopp moo nekk ci seen i gët ba tax képp ku ne président Ousmane Sonko ba ñu xam ne moom nga àndal sax ñu tëj la ci kaso bi loolu doy na waar doy na waar boo xamante ne ne mais Ousmane Sonko day bokk Ousmane Sonko day bokk 2024 day dem. incha allah ko teg non fi ñu ko teg mooy fi ñu ko teg mooy lépp li ñu ko taqal amul li ñu ko takkal yëpp amul te ñoom seetal nañu Ousmane Sonko donc deux ans yi ñu wax Macky Sall na génn le 25 bu waxee na teg lépp ci suuf Ousmane Sonko ñëw ñu organiser élection yi. kii gañe gañe lu jëm ci euh, wàllum ñu fàttali mbokk yi déglu rajo Rewmi FM ñoo ngi invité Amy Collé Niang moom moo jiite jigéen ñi bokk ci PRP euh, ci euh, au niveau national moo nekk tamit vice présidente jigéen ñi coalition Yewwi Askan Wi sànq yaa ngi wax reportu élection présidentielle 2024 tey am na ay personnalité yu wax wàllum report boobu mais Ousmane Sonko ci atum 2021 juin 2021 ci benn conférence de daf cee waxoon ne élégance bi Abdou Diouf am Macky Sall amu ko grandeur bi Abdoulaye Wade am Macky Sall amu ko moom mu jàpp ne Macky Sall ni Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade joxe woon nguur gi du ko joxe nguur gi dina fexe ba indi pëccëxoo ci Sénégal indi fi kaawo ba dàq élection yi taafantaloo ko loolu Ousmane Sonko waxoon na lu loolu bu yàgg-yàgg tey jii ñuy laam waat lu jëm ci wàllum dàq élection yooyu lan moo ci sa gis-gis. waaw sama gis-gis looy li président Ousmane Sonko waxoon jamono ji mu ngi xeeñ ndax nag bu fekkee ne dañoo woote ay manifestation yoo xam ne xale yi yoruñu jaasi yoruñu paaka yoruñu pistolet yoruñu dara am ñu nekk ci seen biir di rey ñii dee 19 personnes dee ñu naan li xewoon mars du xew ñoom si seen kër am yoo xam ne mu ngi lakk. xale yi di lakk ay Auchan ñu naan li amoon dootu fi am wax jooju lañu war a teg ci suuf te président Macky Sall euh, man de li ma koy wax toujours lenn la rek xam nga ji li wax di dellu ginnaaw di dellu ginnaaw wax ji yépp nañ ko tek mu tegu mooy lenn kese la moom ci boppam ba président Ousmane Sonko di wax li muy wax di ci 2021 boobu dafa fekk loolu nekk ci bopp Macky Sall ndax amaana Macky Sall lu mu fanaanoo bu yeewoo bu ko waxee dina fanaan ci yeewi amul dara dara loo xamante ne ne day nëbb lépp lu ñu bëgg a teg ba ci député yi la ñu waroon am lépp bañ ko tegee ñun yeewi askan bi yëg nañ ko avant avant euh, euh, Macky Sall ñoom ñu di ko wax. kon nga xamante ne day nguur goo xamante ne dafa am lu ñàkk dafa dese dëgër te nag nguur buy waaj a daanu dangay gis ne bunt yëpp ay ubbeeku loo tuur mu sotteeku ci biti jamono ji ñu toll nii président Macky Sall fa la jël te man nag yaakaar naa ne moom président Macky Sall te moo ngi dem ci réew yi nga xamante ne ñoo ñu wër ci àdduna. dem di seet ñaar ñuy xeex mu di leen jubóole. ba instant bi day dem mu nga dem ci Poutine yow ye looy uti ci Poutine te yow sa dëkk ngi nii ñu war a jublu tabaski gisoo ay xar ci mbedd wala boo ci gisee ay xar xar boo laal baadoo la mënu koo jënd trois 300000 jëm kaw yow sa dëkk nga war faa toog wax ak doomu aadama yi massawu leen nit ñu dee yooyu yëpp defoo nga ne da ngay dem ci Poutine man loolu laa xamul lan leen nuróol. loolu laa mënut a comprendre. dafa doxi tànk euh, président Macky Sall ak yeneen chef d' état africain dafa dem fay. taal bi tàkk ci diggante Russie ak Ukraine na fay na fay taalu dëkkam ba pare ndax taal bii nii nii nii nii dama defe dafa toll ci saxaar rek mais fuñ buñ ko uppee dina dina dina jëf-jëfiwaat. kon na nga jàpp ne am na lu ko doy daal. waaw Macky am na lu ko doy xam nga lu tax am na lu ko doy tey jii tey buñ nee dañuy jëli Ousmane Sonko wala tëj nañu Ousmane Sonko nan la réew mi di mel encore nan la réew mi fu ñu jëmaat fan la ñu jëmaat. nit ñi mais bu ñu jàppee Ousmane Sonko fu ñu jëm nit ñi ñu ngi seet lan la ñu lekk nit ñi ñu ngi seet seen lois yi nan lañ koy fayee adduna bi mu ngi metti ñu war ñu may jàmm waaye yow 6 mois dese la te yow bañ lay jox dëkk bi jëloo ko ci ay xal jëloo ko ci ay safara nga bëgg ko delloo ci ay xal ak i safara loolu nag wax dëgg yàlla nañ ñu ci may jàmm nag. nañ ci may jàmm. d'accord jërëjëf euh, Amy Collé ñaar ñu daal di wax ci ba tey conférence presse bi nga xam ne tey ministre de l'intérieur ak euh, ministre des forces armées ak premier ministre bi ak ministre de la justice doon nañu ko def. ñoom wax nañu ci enquête fond Covid 19 yi. nee nañu enquete bi euh, enquête bi. dañ ko jébbal procureur procureur jël ko jébbal ko dikk dikk léegi tey mu pare ci li nga xam ne nay moom mooy euh, enquête bi euh, yow lan moo ci sa xalaat ndax ñoom nee nañu enquête bi léegi tey mu pare. léegi enquête boobu moom la ñuy xaar askanu Sénégal ñoom enquête bi sax wax dëgg yàlla. jarul woon sax ñuy def ay point de presse pour di ñu yëgal ne enquête bi ñoom dañu waroon ñëw tegal ñu lépp ci kaw table bi di c'est que dañoo dem a dem a dem a dem ba cër bi nga xam ne moom lu ñu waroon jox suñuy takk der sax ñoom ci seen bopp dañoo dem ba xale yi dañoo ñeme takk der yi léegi parce que dañuy wax benn wax dugg génn ñu tegal leen vidéo wan na ne carrément li ngeen wax du dëgg ñu duggaat génn di waxaat leneen ñoom xam nga mais yéen leen nee nañ yéen a de yéen ay ñaax xale yi ñoom loolu la ñu nee nañ yéen yéen ay ñaax xale yi yéen opposition radicale bi yéen waa yeewi xam nga xale yi dañoo nekk xale yi nga xamante ni guddi ñu toll jili xale yi kenn du leen jox paas kenn du leen jox ay mburu defal leen ci yàpp damay jaar ci digg bi man kenn tegul ay kaar ne leen dugg leen jamono ju ñu toll xale yi ñooy paasal seen bopp jox seen bopp añ jox seen bopp ndox bu ñu naan ñëw taxaw déglu la yow mi nekk ci opposition bi li ngay wax est-ce que doy na la wala doy na leen wala doyu leen su leen doyee ñu ànd ak yow doyu la ñu bala fa ñoom nag dafa am politique bi nga xam ne moom lañu daan defee teg kaar yëpp ci xale yi ba mu fees jox leen t-shirt jox leen xaalis xale yooyu tey ñoo dajaloo xam ne dañ côté boobu dañ leen di nax ñu ne xaaral ñu ñëw ci opposition opposition bi nga xamante ne ci la ñu ñëw joxuñu leen dara xale yooyu ñoo am ngëm-ngëm ngëm-ngëm gi ñu am mooy laajuñu leen dërëm waaye dañuy ñëw ànd ak yéen bu ñu gisul lu ñu doy nag toog fee bu ñu gisee li nga xamante ne nag jaarul ci réew mi ñu taxaw xeex ko xale yooyu ñoo xeex. d'accord mais Amy Collé sànq yaa ngi wax ci euh, arrestation yi ñun ñëpp nemmeeku nañ ne li ñu jàpp ci Pastef dafa bëri Euh, li ñu jàpp si ñoo xamante ni ay activistes ay influenceurs euh, ay sympathisants Ousmane Sonko ay journalistes mais euh, gouvernement bi ñoom ci seen conférence de presse nee nañu ñi ñu jàpp dañoo def loo xam ne yoon daf koy tere maanaam appel à l'insurrection outrage à magistrat mais ñenn ñi tamit ci geneen wet gi dañoo gis ne ñi fare ci nguur gi ñoo ngi def loo xam ne tolloo na ak la ñee def wala lu ko ëpp te dara fekku leen ci ñi fare ci nguur gi Ahmed Suzanne kamara fekk ji leen Sonko fu mu nekk ngeen rey ko ba tey mu ngi ci biti Bouga Zali faux billets yi ba léegi Bouga mu ngi ci biti ak ñeneen ak ñeneen mën nga cee lima lima lima lim ba doyal te ñoom ñëpp a ngi ci mbedd mi gis nga Kaba mi nga xamante ne moom lañu jàpp Parcelles Assainies taqal ko loo xamante wax dëgg yàlla Kaba du kooku du moom dafa jóge États-Unis liggéey alalam tabax hôtelam bu mag boo xamante ni képp ko soxla ci doomu parcelle nga bokk opposition comme nga bokk ci Amadou Ba wala dara boo ñëwee dala koy abal ci njekk ak teraanga amul benn problème Kaba xamul sax nu ñuy rayee muus jëli na doomam école dem ba këram ñu jàpp ko ba léegi mu ngi ci kaso bi toog. te kenn ñun xamuñu ba léegi sa Kaba man demoon naa ba central avant ñu koy jàllale mais munuñu la wax ne Kaba lii lañ ko téye ñun ba tey xamuñu. dara waaw ba tey xamuñu Kaba luñ ko téye affaire yi daal mu ngi nii kon nag nga xamante ne ku wax jàpp gi bëri gi lu ko waral jàpp gi. jàpp bu bari bi nag ragal la jàpp bu bëri moom ragal la xam nga nit boo ñëwee fi nga jëm ñi ngay jàpp noonu amuluñ la benn njëriñ ndeyu mbill bi nga xam ne moom nga soxla demal ci moom directement. ku ndeyu mbill Ousmane la ñu soxla nañ dem ci moom mais ñi wër Ousmane Sonko wax dëgg yàlla dañoo yor njaboot te defuñu dara. seen yoon nekku ci seen yoon nekku ci. ànd nañu ak comme keneen nu mu ànd ak Macky Sall keneen nu mu ànd keneen Ousmane Sonko la ñu soxla moo ngi cité kër góor gi bu leen neexee nañ dem ne ko coppet mais lu tax ñu war a jàpp ñi nga xam ne ñoo war Ousmane Sonko ban njëriñ la leen amal. te te te pourtant euh, ami collègue ña tey li ñuy wax ñoom appel à l'insurrection xam nga bari na xale yoo xam ne dañ leen a jàpp ci appel à l'insurrection mm-hmm. mais loolu xale yooyu wax wala ñu bind ko ban jàpp leen mais ausman sonk moo ngi koy bind moo ngi koy wax mais kenn jàpp ko. loolu xam nga man jàpp yi daf ma euh, ma jaaxal gis nga ba ñu jàppee ci Fall ma dem tribunal bu ñuy jugé xale yi xam nga am na ñoo xam ne ay koko lañ doon jaay ñi Café Touba ñu ñëw jàppaleen Café Touba koko bokkuñu sax ci xeex bi xeexuñu ñu jàppaleen kon xam naa ñoom noonu la ñuy gisee xale yuy dem seen yoon rek ñu jàppaleen te jegew ñu laalew ñu taxew ñu man dama toog tiit juge bi naan leen waaw waaw waaw loolu doon uti padduwaa ba ñu jàpp la te ki muy wax padduwaa ko parcelle lañ ko jàppee di wax yoo xamante ne man dama man damaa joom mi ba nga xamante ne nee naa réew mi mais mais mais ñu fi ñu jëm xamuñu ko mais mais tey manifestation yi moom dañuy euh, raatal rek di jàppi dem mais dama ne tey am na ñoo xam ne dañ ne ay dañ ne tey ay activistes wala ay politiciens yoo xam ne dañ ne leen yéen da ngeen def appel à l'insurrection maanaam da ngeen a woote. wàcc leen mm. wàcc leen ñu xeex. Mm-hmm. wàcc leen ñu xeex. loolu kan moo ko woote. Euh, maanaam tey ñoom dañu ne am na ñu ñu teg loxo comme par exemple tey Oustaz Assane Seck. Mm-hmm. dafa wax ne Sénégal boo jàppee Ousmane Sonko euh, wala nga tere ko bokk ci élection. Mm-hmm. dëkk bi tàkk dugub bi dëkk bi yëngu mhm. am na ñu jàpp ko am na ñoo xam ne dañuy woote ne wàcc leen ci mbedd mi xeex ñu ñu ñu jàpp leen mais yooyu ñoo ñuy wax yooyu noonu dama ne Ousmane Sonko moom ma ngi wax wàcc leen xeex mais kenn jàpp ko lu waral lool. mooy li ma la wax léegi dama ne eh, jili ah ñoom de dañuy dañuy dañuy gis kaaba gi nii ñu ne hmm. demuñu ci kaaba gi ñun fee la ñuy jëm. ca jàkka ja. mbir mi mbir mi Ousmane Sonko la ñu soxla te moom wax na leen carrément bàyyi leen doomu jàmbur yi ngeen di jàpp te man ngeen soxla ngeen ñëw ci man. waaw léegi lu tax moom mu ne leen bàyyi leen doomu jàmbur yi ngeen di jàpp te ñëw ci man te boobu ba tey ñoo ngi jàpp doomu jàmbur yi bàyyi ko moom mu toog. waaw mais loolu moo jaaxal nit ñi. waaw loolu moo jaaxal nit ñi. te ba pare nee nañ moom dafa def infraction bi ñu koy jàppee côté euh, Koungheul mais xanaa kay ku def infraction ku wàcc yoon bu ñu la jàppee dañu war a yóbbu euh, commissariat wala wa jéem laa déglu ci procès verbal mais yow nee nañ la dangaa def loo xam ne yoon da koy bañ ba pare jël la yóbbu la sa kër loolu tamit Sénégal yu bari mënuñ ko comprendre. dama ne Ousmane Sonko dafa mel ni xal bu ñu teg ci seen loxo di ko tëltëlee kenn mënu koo téye ci sa loxo bu dëgër. guddi yi ñu toll fa lañ toll pour téye ko rek ci sa loxo ku ko téye mu lakk la foofu lañ toll fu mu toll nii nañu rafetal ñu ngi jublu ci tabaski. yal na yàlla may ñëpp li ñu tabaskee te mu dëkk bi am jàmm am salaam bu ñu xalaat mukk jouru tabaski day wedde ñu dem di ñu dem di ji am usba soog am na ñu dul dem tabaski hmm. xale yu bari dañ doon dem ci dëkk yi di tabaski mais bi yoon neen duñ bougé ah, xale bi ñu dem ji xale ñu bëri neen duñu dem tabaski ji xale yu bari nee nañu duñu dem tabaski ji ren fii la ñuy toog xaar parce que bëgguñu dara betti leen donc euh, bu ñu jaay furba waaw mais loolu nag état bi xanaa nag ragalee wuñ noonu nag ragal ba nga xam ne bàyyi ba nit ñi dem tabaski ñuy jàpp nit xanaa xanaa ragal googu moom état bi ñi ko def. non néew ma état bi dañuy bàyyi ba nit ñi dem ñu tabaski ji man sama xalaat laay joxe. mais waaw dafa am ñoo xam ne loolu lañ njort ma ne loolu état bi ñi mu ko xanaa. en tout cas xale yi demuñu tabaski ji ñu ngi toog dafa am ñoo xamante ne Ousmane Sonko daf leen jaral seen bakkem man bokkuma Pastef PRP laa bokk Déthié Fall laa àndal. waaye Ousmane Sonko ñoo bokk yeewi askan bi. yéen bokk yeewi waaw. bokk yeewi bi ñu bokk yeewi ak bokk ci Sénégal bi ñu bokk ci Sénégal muy doomu Sénégal bëgg laaj réew mi ñu di ko def lu metti lii moo tax may waxee nii te dama gis tamit wax dëgg yàlla am na loo xam ne daray àdduna jaru ko ci lii ñu ko téye nii lii ñu koy teg nii dara jaru ko nañ jàkkaarloog moom ki ñu ki Macky Sall bëgg mu jàkkaarloog Ousmane Sonko na jàkkaarloog ak moom Ousmane Sonko rek du moom mooy dem élection ñu bëree dem élection. képp koo xam ne am nga yaakaar ne Ousmane Sonko doy na la nga votel ko ku am yaakaar euh, Déthié voté euh, kiyal la nga votel ko. ku am yaakaar Macky Sall ki muy teg. mais ñoom est-ce que ce que njort ñu ne bu Sonko yoree réew mi da leen di yóbbu euh, ci kanamu yoon ak seen ñoom comme ni ko Sonkoy waxee yooyu daal. mais Sonko dalal na seen xel nee leen bu leen ragal yi ngeen di xalaat dara du ci am. te ñun muy Sonko muy décce Fall muy keneen ñun ñaan nañu yàlla na wax dëgg yàlla ki nga xamante ne kii ñëw ci Sénégal na xool fi Macky Sall tolloon mu àggalee réew mi avancé parce que président Macky Sall ba mu yéegee moom tamit tardé na ay kii yu bari ci ay jàpp tëj ubbi ci ay Karim Wade ci kenn yu kenn xamul te ba léegi nii mënuñu la wax xaalis bi ñu doon wax ne Karim Wade moom la jëloon kenn xamul ba tey affaire yi fu mu fu mu mujjee mais Amy Cole Niang yéen tamit est-ce que bëgg ngeen est-ce que bëgg ngeen juboo am est-ce bëgg ngeen dal am laaj la ndax yéen woo nañ leen ci ab dialogue euh, national yéen PRP Ousmane Sonko yéen ñëpp ngeen ne du ngeen dem si dialogue bi euh, fu ngeen ko teg xam nga dialogue bi lu tax mënuñu fa dem mooy président Macky booy woo sa doomi réew di woo sa njaboot ne leen dañu dañu bëgg ñu waxtaan mais nit booy woote ñu waxtaan te yow ña ngay woo pour waxtaan ak ñoom seeni njaboot yaa ngi leen tëj ci kaso bi. mu ñoom ban waxtaan la ñuy waxtaan ak yow ban waxtaan déggoo lu ma wax ci commencement dama leen ne président Macky Sall bu jëloon ñi mu jàpp ñëpp te nga xam ne politique doo nga leen dugal ci kaso bi mu génne ñëpp ñu dem ku ci ñibbi sa kër. mu tàllal loxo Ousmane Sonko tàllal loxo Déthié tàllal loxo keneen mais ñoom ñëpp dañuy ñëw toog waxtaan ak moom parce que ñëw c'est pas la première fois ñu def dialogue te ñoom demoon nañu Ousmane Sonko Macky Sall woote na fi dialogue mu dem Déthié kon nag tey bu génne woon ñi mu tëj ñëpp kon dialogue bii bu ñu ko wootee ñu dem xoolal ñu ñu enlever woon euh, président euh, euh, Déthié Fall ci buntu siège maa ngi taxaw koo xamante ne defut waxul ñu ñëw ne la coppet yóbbu tëj la fukki fan dogal a génne mais mais dëkk bi tamit nag. ana ana est-ce que bokkul si ñi xam xam xamb comme nan. xam xamb pour mbir yi di gën di boy. non non du genre boobu boo ko gisee sax xam ne melul noonu. moom bu ah, ànd ak nit non ci kaw mais ci suuf mën naa am ak. Euh, non ñiy xamb xàmmee nañ leen Déthié ku ko gis xam ne nitu dëgg la nit koo xamante ne ànd naa ak moom 16 ans man lépp lu mu wax dëgg la fu ma gis yu ñàkk fayda du ci dugg te nag Déthié xamul lu bon. bu doon tey jii tey Ousmane Sonko yeewi askan bi la nekk Déthié bu gisoon ci usman sonk lenn loo xamante ne bokkul ci li mu war a ànd ak moom ànd ak moom. tey Déthié sax dafa yor parti boppam nag dafa yor parti boppam yooyu mbooloo boppam mais Ousmane Sonko dañu bokk ak moom Yewwi Askan bi foog ñu defendre ko. waaw mais te yow yaay vice président jigéen ñi nekk ci Yewwi mais yéen am ngeen lu lu ngeen lu leen doy tamit yéen waa mois. 6 mois yooyu noonu wax dëgg yàlla moom euh, bokkul ci li nga xamante ne mun nañ ko cee téye mu bañ a jàll ci parrainage yi. parce que loolu waxoon naa la ko ci émission ba neenaan naa loolu euh, ñi nekk ñu def droit ñoo ciy mën a wax mais. amul amul benn problème pour Déthié Fall euh, pour mu mun a. jàll bokk si d' accord léegi yéen est ce que yéen PRP jàpp ngeen ne yéen fan ngeen di wutee ay parrain ak jàpp ngeen ne ndax est ce que tamit du leen kale ci parrainage ñun parenage bi wax dëgg yàlla bu ñu fëggoon tey tey tey ñu joxe lépp lu ñu soxla ñun pare nañ yàgg na. tey tey tey bu ma bu ñu fëggoon léegi ñu joxe mais dama la bëgg wax ne la parrainage ci boppam lañu war a génne sànni ko fële képp koo xamante ne juddoo nga Sénégal màggee nga Sénégal war nga mën a nekk président nga ñëw bokk mais baa doon pëccëxoo bu boobaa. bu boobaa nañ def pëccëxoo xam naa ne un un yi dina bëri waaye ku ci nekk di nga xam kii kii dañu bàyyi nañ ñëpp bokk loolu mooy Macky Sall xam nga lu mu war a bàyyi joxoon ngeen ma seen réew nee ngeen ma dem sama 6 mois yi bu ma ci jàmm euh, parenage du am dara du am mois d'août bi dañuy dugg la parrainage yi amul nañ ñëpp ku bëgg a bokk na nga bokk après nag ñu xëppi suñu bët seetaan. waaw mais bu ñu ne parrainage amul euh, est-ce que kon du ñu dem ba. ñu baree baree bari nga dégg leen 20 listes mën nga ko fee dégg bu boobaa est-ce que mënuñu ko orga est-ce que mënuñu organiser rek parrainage bi bañ a def parrainage boo xam ne parrainage la pour parrainage pour bloquer ay nit xam nga parrainage pour bloquer ay nit moo bon. Mm. mais parrainage boo xam ne def nga ko boo xam ne consensus am na si mu nekk loo xam ne comme li Sana wax ne nañ wàññi parrain yi. Mm. doublon yi nañ ko dindi surplus yi nañ ko supprimer est-ce que parrainage boobu euh, si lu baax bañ see jublu gàllankoor ay nit est que boobaa du baax. waaw ba tey tamit loolu mën naa nekk euh, ñu organiser ay élections yoo xam tamit def parrainage yoo xam ne dinañ xool mooy jukki. Hmm. ñi nga xamante ne ne wóor na leen ne ñii du yóbbaale ma du genre xaw ma nan laa ko mën a expliquer du ñi nga xamante ne dañoo bokk pour bokk rek tegu nañu mu politique nañu xam nañ fi ñu jëmee Sénégal mën nañ koo yor bu boobaa ñoom mën nañ leen bàyyi. ñu ñu dem mais dama la bëgg wax ne que ba tey loolu euh, président Macky Sall du moom mooy décider kii moo war a dem ak kii moo warta dem moom ci boppam moo warta dem mais ñeneen ñi ci des ku bëgg bokk da nga war a bokk parce que Sénégal nag ku ci nekk xamante ne tey jii jii li yow boo xamee ne boo demee doo am ñetti nit doo dem jël say 15 millions waaye say trente millions di ko dugal doo dem dangay toog ñun nag dañoo liggéey nee naa la PRP ñaari at la am mars bi passé la am ñaari at. mais ñun dañoo rampé def 16 ans 17 ans Déthié Fall def presque ay 29 ans donc yàgg na ba ñi politique du tey xam nañu rukk yu xam rukkaat yi xam fu ñuy teg suñu tànk xam nañ ko bu baax a baax nee naa la parrainage yi buñ ñu woowoon tey nañu teg leen ci taabal bi ñu tegal leen parrain bu ñu soxla tegal leen ko ci kaw taabal lu ñu ci soxla ñu tegal pare nañ ñun. d'accord déjà ñun pronto nañ ñoom rek la ñuy déglu. d'accord jërëjëf euh, ami Collé Niang léegi yéen waa Yewwi. Mhm. Euh, problème baa nga mel ni tout le man lañ ci biir Yewwi ndax xalifa Ababacar Sall moom nee na euh, day dem si jaloog bi ndax moom nu mu bokkee rek euh, nu mu bokkee rek baax na waa léegi euh, ami yéen <laughs> yéen demu leen si dialogue bi kay. Khalifa moom dafa bëgg a dem si dialogue du ngeen ko bàyyi nag tranquillement moom mu dem si dialogue ndax moom nee na na bokk rek ak nu mu bokkee baax na. mais waa yeewi askan bi xalifa Sall yeewi askan bi la bokk. waaw xalifa Sall xalifa Sall xalifa Sall wax seen gaaruwaale yi ngeen nekkee nag. non non non non yeewi askan bi gaaruwaale wu ñu xalifa. xalifa ngeen di waxal ami. non non non ami ngeen nga xalifa nag ñun dañ koo jox cër ba nga xamante ne ne. non man ngeen ko jox cër mais moom ngeen di waxal ci communiqué bi. non kan bind communiqué a hmm. a bind ne. Euh, xam nga leader yëpp kenn mooy bind bu doon wax tamit ñëpp mënuñoo waxandoo hmm. leader yi ñoom ñoo bind ne ñoom ànduñu si dialogue bi ndax jaloog bi ay caaxaan la ak deal. Mhm. yéen déjà nee ngeen ku dem si jaloog bi rek dealer la. Mhm. comme nee ngeen dialogue bi moom ab dil la ku fa dem dealer nga te nee ngeen dialogue bi caaxaan la ku fa dem ab caaxaankat la. Mhm. nee ngeen tamit seen sart euh, yeewi day tere kuy jege nguur. kuy dil ak nguur ak kuy waxtaan ak nguur. te yéen jàpp ngeen ne dialogue bi ku fay dem yaa ngi waxtaan ak nguur yaa ngi dil ak nguur. Mhm. te xalifa kay fala dem moo moom communiqué boobu nag. waaw léegi dañuy eh, wax gis ngeen sax xalifa ñoom tontu nañ. non ma loolu ci ci ci loolu ma wax la ci lu tuuti rek du ci sori mooy président Khalifa Sall magum jëmm la mun naa ne Habib Sy wala à part Habib foofu noonu ñëpp moo leen moo leen mën na leen jur. tey bu demee ba xool ne mu dem ci dialogue bi mooy tax Macky Sall seetal ko mu mun a bokk ci élection yi loolu droit la. waaye it waa yeewi dañoo am charte yi ñu tegoon ñoom it seen droit la ñu wax li nga xamante ne moom la waa yeewi tegoon man duma ci sori foofu laa yem ci loolu léegi nag dialogue bi léegi mu jeex man li may ñaan rek mooy Macky Sall bu mu tas yaakaaru Khalifa. doo yem loolu de. Macky mu tas yaakaaru Khalifa Sall. waaw ami xamul ndax bu day ñaaw de kon. waaw xamul bu tasee yaakaaru Khalifa dina ñaaw. waaw léegi <laughs> euh, ami xamul lan moo doo yem si loolu. yéen ci biir seen communiqué bi aussi da ngeen a wax ne yabulu leen benn kuréel. ci dialogue bi. Mhm. mais yabalu leen benn personnalité ci dialogue man leer na ma ne ak ñiy déglu leer nañ ne seen communiqué bi xalifa Sall ngeen di waxal. ba pare loolu moo tax sax waa Khalifa Sall ñoom tontu nañ nee nañu yéen yeewi leader yi am leen euh, def leen yëfu mag ba pare nee nañ consultation bi am ci war a am ci leader yëpp pour ñu valider ko loolu aussi amu ci ànd bi moom ma ngi ñaaw. yàlla bu mu ñaaw nag. ndax nag ànd président xalifa Sall ak waa yeewi askan bi ànd bu rafet la ñu ànd xalifa sonn ci loolu nag campagne fu nekk sonn loolu nag macha allah donc yal na yàlla def ba xol yépp dajewaat ñu ànd ci jàmm bu dee euh, euh, féewaloo dafa am te man féewaloo woo sax dama ko gisul mais bu dee dafa am yàlla na ñu déggowaat ci jàmm ndax ñoom ñëpp réew mi moo leen ñor ñu ànd liggéey réew mi avancé Macky Sall nag président xalifa Sall comme moom yeewi askan bi la nekk woote na dialogue mu dem. ndax li nga xamante ne moom lañ ko teg ci ndoddam loolu président Macky Sall yàlla na nga am xolu teg ko ci jàmm ak salaam. mais yéen nee ngeen Khalifa kon maanaam dealer la. non man nag xalifa sàll moom wax dëgg yàlla dama wax dealer la. non yéen non yéen waa coalition yéen a ko wax. xam nga non non ne président Khalifa Sall di dealer la waxuñu. non da ngeen ne da ne dialogue bi pour deal la ak ay caaxaan la mais fu ñuy dilee fu ñuy dilee kay ku fa nekk yow si dealer yi nga bokk. jiili euh, gis nga suppu kànja boo koy togg. boo ci diful tiir. lan lay nuróol. lu safe de. waaw bi loolu lay nurool. dialogue bi safewul. lu tiir yi ca tiir ba ca waroon dem kenn ñëwut. waaw waaw moo tax nag nguur gi. état bu Sénégal gouvernement bi. Hmm. ñoom nee na ñi nga xam ne dañoo bëgg réew mi bëgg jàmm ci réew mi. ñoom ñoo dem si ñoo dem si dialogue bi jàmm jooju dafa waroon njëkk ci njiitu réew mi mu jàmmal boppam jàmmal askanam ña mu tëj ñëpp mu ubbi leen te baleen ñu dem seen yoon bu boobaa mu woote dialogue boo xamante ne ne du am benn problème ñëppay dem. waaw non xam nga tey euh, ami ñun d'accord nañ ne ñu ëpp doole ci opposition bi lii tax ñuy wax opposition dëgg ci Sénégal ñi si ëpp. mais yow dama yow kii foofu jiili Barthélémy Dias moo xalifa saal ñoo bokk kan. waaw taxaw na fi carrément ne moom dafay dem dialogue. lu tax mu dem ba ci biir dellu ginnaaw ne dematul ci dialogue bi. dafa xamagutoon terme de référence moom ba muy wax ne day dem dialogue xanaa xamu ko woon. te nee na moo organisé dialogue bi. man ci boobu sax fii laay jàllalee pour wax ak euh, euh, Barthélémy Dias waa Parcelles Assainies ñu ngi lay xaar. jaar nga fa ci ci campagne yi ñu jàppale la lool tere terrain ko bi nga newoon da nga fay def deux 200 lii ñoo ngi la fay xaar maire bi nag Pastef la nekk muy Ababacar Jami Sané ñun xooluñu ci kii Pastef la nekk wala kële Parcelles Assainies li nga leen diggoon nga ñëw defal leen ko li nga leen waxoon tamit ci nga xamante ne bu inondation yi amee taw bi bu ñëwee loolu yaa ñu ko diggoon ci Parcelles Assainies te yàlla dogal na ne fu mu toll nii ñaat ñaari at def nga ko waa Parcelles Assainies ñu lay xaar ndax na bul fàtte ne entité bu nekk ñoo bokk ci yeewi askan bi Parcelles Assainies nag entité yi ñoo dajale woon di wàcc ak yow ci terrain bi ba fan la yow Barthélémy Diaz Parcelles Assainies ñu ngi lay xaar. tey dafa am ay nitu ñu bari ñu jege Ousmane Sonko. Mhm. nee nañu Bart bu nekkee maire Ousmane Sonko joué na ci lu bëree bëri. waaye nitu Bart ñoom dañoo weddi loolu. nitu Bart nag waruñoo weddi loolu wala ñoo koy weddi dañoo xamul man mii di wax ak yow Barthélémy Diaz li mu dugg Parcelles Assainies yëpp dama ànd moom ci terrain bi. ñuy campagne ba 22h wala ba 23h lu mu musut dugg ci benn commune moom Barth Parcelles Assainies la gën a campagner mu am fa lu mu musut am na na delloo nit yi njukkal Ousmane Sonko tey képp koo xam ne toog nga maire wala nga nekk député te newoo jërëjëfe Ousmane Sonko doo gor. doo gor parce que ah Ousmane lépp lu mu mën def na ko pour ñu nekk ko bu ko neexoon ne man liste bi ma nekk dañ ko invalider du ma dem du ma du ma ma sonn génne ay otoom yàq ay essence am def lépp jàppale leen. képp li li li présidente Aïda Mbodj wax rek Ousmane da daan nit ñi dañ daan ñaan pour mu ñëw ci seeni gox pour ñu mun a gañe ñu yàq seen i xaalis président Déthié Fall ni ko Ousmane ko defee noonu la ko defee jël ay otoom jël coonaam jël dooleem jël léppam ñu ñu jeex tàkk ñul kuk wàcc ci terrain bi kon ñoom képp koo xamante ne nekk nga maire neel jërëjëf waa Yewwi Askan bi jiital ci Ousmane ko moom ak ñoom Déthié Fall. d'accord léegi Barthélémy Dias comportement bi mu amee moom noo ko gisee. waaw moom kambiyaaram gaaw na trop nag te dafa teel nag. changement waaw dafa teel trop trop trop. dafa teel te man xawma lan la ci jublu mais lu tax demul ci dialogue bi. nee moom yéex na de ba léegi joxaguñ ko ko moo ngi bëgg yéex de man daal euh, Barth li ma lay wax mooy ñëw naa ba ville de Dakar toog naa ak yow. toog naa ak maire Ababacar Jamil Sané ndax man santé Parcelles Assainies santé man lañ ko jox man adjointe au maire bu chapeauté santé nga wax ak ñun ay kàddu yu leer te boobu ba tey dara avancé wu ci ñoo ngi lay xaar bu baax a baax ci loolu nañu xeexal askan bi bu ñu xeex su suñu xeexu bopp nañu askan bi ñor ndax ba ñuy laaj baatu askan bi askan bi lañ tàllaloon loxo donc nañu ñor. xam nga tey euh, Amy Collé Niang yéen taxawal ngeen euh, F24 yéen waa Yewwi euh, leader yéen si ngeen bokk. Mm. sànq maa ngi ñoo ngi fay waxtaanee parrainage ak euh, lu jëm ci wàllu am ne amnistie ak euh, euh, xeet yu demee noonu ndax xalifa moom nu mu bokkee rek baax na mais guvernement et si état bu Sénégal ñoom Benno Bokk Yaakaar mhm. ñoom nee nañ ñi nga xam ne ñoo dem ci jaloog bi mooy ñi bëgg jàmm mooy ñi bëgg réew mi yéen ñi nga xam ne yéen a bañ a dem si dialogue mais yéen yéenay nitu fitna yi maanaam yéen yéen a bëggut jàmm yéen a bëggut jàmm ci réew mi yéen a bëggut ñu waxtaan yéen la yéen loolu lañ leen accusé léegi ñi dem ci dialogue bi di ay magum jëmm di ay maam ñu joxoon leen cër ci Sénégal ñu naan président bi gëmal dóor nag ñooñu est-ce que bëgg nañ jàmm yow mii bi dañ ci dialogue war a woote jàmm ak salaam ngeen di ay kilifa di ay magum jëmm président bi ngeen mag ko fuuf war koo teg ci yoon dem fan naan ko gëmal dóor xanaa kon ñooñu ñoo bëgg fitna ñun dem demuñu dialogue de waaye ñoo ngi woote jàmm waaye ñoom ñi dem ba ca biir dialogue bi naan gëmal dóor nag loolu foofu nag loolu nag lu ci war a wax ñoom. doy na waar ah mais doy na waar. jërëjëf euh, Amy Collé Niang yow yaa jiite jigéen ñi nekk ci PRP euh, au niveau national yaa nekk vice présidente euh, coalition Yewwi Askan Wi yéen waa parti PRP yéen yéen a ngi rek ci Yewwi mais est-ce que tal ngeen seen bopp ba mën a wër Sénégal waxtaan ak ñoom mën leen a jaay au moins ab programme. ñu ngi koy def bu baax a baax a baax ñu ngi kaay bokk. boo déggee kaay bokk bi nga xamante ni ñu ngi koy def fépp ci Sénégal ñu ngi ko fay def euh, président ba mu jógee voyage yàggul euh, demoon na fi Paris li ko yóbbu woon tamit pour dem seete ñi nga xamante ne ñoo bokk PRP ak ñi nga xam ne ñoo bokk yeewi askan bi massawu ñi nga xamante ñoo ànd ak président Ousmane Sonko te nekk ci diaspora bi donc dem na fa euh, ba mu ñëwee nii matagul sax cinq jours ñu ngi ci liggéey bi bu baax a baax ñun nag li ñuy liggéey dañuy wax lu tuuti jëf lu bari foofu lañ toll wax lu tuuti jëf lu bari waaw PRP nag foofu la toll ñu ngi liggéey am ay cadre yu mat cadre fan yi passé gis ngeen euh, ba ñuy présenter programme bi donc euh, ñu ngi ci liggéey bu baax a baax incha allah rabbi ci kanam tuuti daal ngeen gis lépp sooba yàlla. mais est-ce que am ngeen ab programme bu ngeen mën a proposer askanu Sénégal. askanu Sénégal am nañ programme bu ñu mën a proposer nax euh, ñi nga xam ne ñooy cadre yi tëju nañu tëju nañ ñetti fan yoo xam ne. liggéey nañ ci loolu ba tënk ko ba jox ko euh, président Déthié Fall ba Déthié Fall won ko askan bi ci congrès bi nag incha allah rabbi lépp dina fa gën a leere bu sooba yàlla ndax ci fan yi néew euh, congrès bi dañuy xaar ñu ngi ñu ngi ñu ngi waxtaan pour fan yi néew rek daañ ko jàpp pour def ko fekk hmm. dëkk bi dal tuuti incha allah hmm. mais dëkk bi dernière question dëkk bi buñ bu président Macky Sall defoon lan ak lan dëkk bi ànd ko dal président Macky Sall muy def dëkk bi dal mooy mu wekk ñu ñun askanu Sénégal yi nga xamante ne ñoo ko tànnoon muy communiqué ak askanam ñàkk communiquer ak askanam moo ko àndil lii ba pare buy wax ak askanam bañ a mer buy wax ak askanam bañ leen wax ñaan leen ma ma may leen. da nga gis muy mer. waaw moom day mer day mer te loolu tamit baaxul ci kilifa. maam day ñàngal daal. waaw ñàngal xëy na tamit noonu la mel xëy na tamit noonu la mel. nit ki tamit nu mu mel rek moom nee na dañ ko doon wax ñàngal Sall daal mais nag du reetaan ci lu mu jóg rek di reetaan. waaw xam naa tamit waaw kon man dama xaw a niroog moom ci benn côté ndax man tamit noonu la man depuis basket ba dañ naan wax damay ñàng rek loolu tamit duñ ko ci duñ ko ci topp dara mais li ñu koy wax pour dëkk bi am na dem dem bu rafet du def troisième mandat parrainage bi na ko teg de côté ku bëgg a bokk mu bokk mu organiser élection yi jaar yoon képp ku bëgg sëgg bëri nga sëgg bëri ku mën sa morom daal. mais yéen mais ñoom nee nañ ñoom waa Benno nee nañ yéen da ngeen a ragal président Macky Sall moo tax chaque jour ngeen naan du bokk te da ngeen a xam ne euh, bu bokkee da leen di gagné. no ñoom ñoo ragal ñoom ñi jël nit tëj ko fële ca cité kër góor gi ne doo génn waaye bërki dem di génn xaw ya tàngal yaramam. tuuti waaw football boobu Ousmane Sonko doon def moom pour kokkali la wala pour lan. non bal boobu est-ce que bu ko tëlee <laughs> bi ñuy dañ doon bal du balu hmm. leen tël nii ñoom ñëpp seen bopp yi di tàng di yëngatu. waaw moom dañ koo ñemewul wala lu xew. non Ousmane ñemewuñu ko nag. Ousmane déggoo lu ma la wax xal bu tàng la ci seen i loxo. te moom nee na leen bu ngeen ma jàppee seen loxo dina tax deret. barki Serigne Touba ah léegi nañ dem jàpp ko. d'accord jërëjëf te bàyyi ñu ñu jàpp ni ñu jàpp nañ leen bàyyi man xam nga lan moo métti tamit jiili wax dëgg yàlla nag ñun ñi nga xam ne nite nañu tey déglu. nan nga mën a ñëwee jàpp jàpp ay nit. te yow ka nga war a jàpp mënoo ko dem jàpp nee na ñëw leen jàpp ma te ngeen bàyyi ñii waa léegi lan mooy problème bi lan mooy problème bi ak ñoom. jërëjëf euh, soxna Amy Collé Niang ñu lay sant bu baax di la gërëm. ñoo ngi lay sant bu baax a baax jii li di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñooy teewlu jërëjëf. jërëjëf euh, Amy Collé Niang mbokk yi moo jiitee jigéen ñi nekk ci PRP euh, au niveau national. Euh, ñuy nuyuwaale euh, président Déthié Fall moo nekk tamit vice présidente bu coalition Yewwi Askan Wi euh, mbokk yi li moo nekkoon seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak Abdou Khader Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm jàmm.